toujours c'est un acte du jour tey àllarba ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru novembre atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñett suñ jógee foofu dañuy seeti li nga xamante ne candidat candidature Boun Abdallah Dionne Ali Ngouille Ndiaye ak kii nga xamante moy mooy Diaw et compagnie lan la ci président de la république Macky Sall xalaat en tout cas ki nga xamante moy euh, président de la république Macky Sall ginnaaw bu mu defee choix am teg ko ci ki nga xamanteni moy Amadou Ba ki di ali Ngouille Ndiaye mam boy Diao bun Abdallah dion ak ñeneen dañu préférer jël seen yoonu bop ginnaw lool nak lool dafa semblé wul ki enchanté ki nga xamanteni moy président de la République Macky Sall limu leen xamal dal ci xalaatam moy seen droit la munu ci dara du ci polémique ginnaw bi nga xamanteni ay candidat la ñu ñom ci seen bop nañu jël seen engagement ba nopi dal di trouver li nga xamanteni moy lepp lo xamanteni war nañ ko mëna def pour ñu am ben majorité loolu moko intéressé depuis que na nga xamné ni que yag na trop benn la majorité boo xamante ni le confier aux lignes li nga xamante moy ay importante responsabilité ginnaw bu mu leen dimbalé ba ñu doon tay li ñu doon ba nit ñi xam leen ñom tay suñu warewul respecter li nga xamante moy ay règles yo xamante fixé nako ko xamlé nak du kenn ku dul le président de la république son excellence Macky Sall mi ngi ko xamlé fofu ca journal yooyu di Jeune Afrique mi ngi admettre que dal que ku ci nek dal am nga légitimement mën revendiquer li nga xamante moy sa liberté ak say ambition ba nopi dal li servir sa mais suñu sukkandikoo ci poste bi nga xamante mo moo élever élevé wu jëm ci président de la république nañu xam ni que daal il faut nga risquer lii nga xamante ne mooy fragiliser lii mooy sa propre camp en tout cas kii nga xamante ni daal mooy président de la république Macky Sall amul benn tontu boo xamante ni mi ngi koy def kii nga xamante ni mooy Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye ak Mame Boye Diao ginnaaw moom am ci ñoom confiance jox leen confiance boobu ba tey askan bi am ci ñoom confiance jox leen ay poste de responsabilité ba nit ñi mën leen xam donc suñu mënul tënku ci charte yi nga xamante ne fixé nañ ko ci seen ay règle ginnaaw bu mu tànnee ki nga xamante ne Amadou Ba ñoom ñëpp ñu waroon plié ci moom donc si seen liberté la ci seen droit la ñu tànn li nga xamante ni mooy ñu wane seen ambition boo xam ne dafa déterminé pour mën a jiite mais en tout cas nañu xam ne que daal lépp luy jiite réew du loo xamante ne dañ koy fragiliser bokkul ak ay ndombal tànk yoo xamante ne moom mi moo leen ko jox en tout cas muy xalaat bi nga xamante ni kii di président de la république Macky Sall joxe na ko ginnaaw bi nga xamante ni Jeune Afrique accordé la leen benn entretien Thank you.